est-ce sax bu ñu ko defee dina tax mu defal leen ñoom ñu ni bëgg ah. bu ñu ko deful tey dafa gën a mën a daf leen di gën a mën a tey à ñoom lu ñu bokk ci élection présidentielle 2020 ah. loolu tey ñoom seen bokk mi ngi ci loxo président bu baax a baax voilà bu baax a baax léegi nag Euh, affaire bi kon rokki mi rokki la puisque nag nee na leen seen bokk mi ngi sama loxo mais lii ni dama ko bëgg il faut que ngeen defal ma ko moo tax sa euh, serait quand même un choix très difficile pour Khalifa ak ki nga xam ne moom mooy Karim mhm. euh, xaw ma tey naka la ñu war a ndax dañuy signer seen acte de mort politiquement ndax dañuy choisir moo tax daal nit ak lu mën di xew na nga gore ak lu mën di xew boo xoolee Barthélemy Diaz maanaam ñoom yaakaaroon nañu que ni mhm. président Macky Sall réussir na peut-être éliminer Ousmane Sonko ba pare. bu ko defee ñoom bu ñu bokkee xëy na mën nañu dérouler li nga xam ne moom mooy tapis rouge bi. mais tey les conséquences sont là. kon ñoom gëmuñu euh, élection inclusive bi nga xam ne à chaque fois ñu ngi koy. billaay chaque jour Ousmane Sonko am dëgg ji seen kaw. parce que tey Ousmane Sonko xoolal ku ci toog da nga xam ne Ousmane Sonko yaay na la tey. billaay wala billaay wal kitaabi ku ci toog tey ci sa nekk da nga xam ni ca dëgg dëgg dëgg Ousmane Sonko mii la yaay na la tey doo ko wax ci kaw nag. mais boo toogee boo teg si njëgënaay xool xalaat mbir yi nga xam ne Ousmane Sonko yaay na la. ok mi ngi nii tey da ngay perte dix perte les teg. effectivement déjà mën nga perte avantage yi la mais perte askan gi nga xam ne tey amoon nañu au moins benn estime bi ci yow. et malheureusement tey euh, ñi ngi ci dig maanaam mi ngi mel ne. goorkat bi yéeg ci garab toog ci branche ba pare di goor branche yaag branche bi yéen ay ànd ni ci suuf dipp tey loolu moo dal Khalifa Ababacar Sall dal ki nga xam ni moom mooy Karim Wade tey dañu taxawee ci diggante boo xam ni yoon bu nu mënti jël mu doon catastrophe ci ñoom effectivement mënuñu mooy maanaam mënuñu mooy tey fi pour le moment mënuñu mooy <laughs> am na nu ñu koy waxee <laughs> gaa yi wuure gaa yi gaa yi wuure am na lu ñu koy kiwee de mooy boo sa ñaari doon toogee fii ah, gaa yi taxaw ci digg bi. boo atelier bi ñu rey bi soo atelier bi ñu rey bi nekk seen place jamono ji <laughs> que saa yi mooy politique bu politique gu ah, Sénégal. teragal moo tax fi mu ne nii moo tax ma ñu la. mi ngi mel ni ñu koj la rek. système bi ci boppam système bi maanaam ñi ko doon incarné ñëpp pour le moment. Mhm. ñoom ñëpp tey président Macky Sall daf leen nar a def ci benn saak ñoom ñëpp ànd ak ñoom. yóbbaale yóbbaale leen. <laughs> ñi ngi ci yoon bi fi mu ne nii billaay ñi ngi ci yoon bi. du daal du daal ba yaakaaroon ni tey dèjà eh, ak moo tax gis nga. lu waay di wut wutal askan bi. lu waay di wut wutal askanu Sénégal lii moom mooy dëgg. Ah, gis nga boo jafandoo ci askan bi. Ah, dëgër laay boobu moo gën a kii boo jëfanduwul ci moom na la wóor ni jëfanduwoo ci dara ñoom nag boo ñu fi bàyyi askan bi yaakaar ni fee ñuy jëfandu ñu mooy mbir ma. Mm-hmm. tey ba nga nii affaire bi rat am na. laal la tax ñu dara dafa jàppoon ne dina yomboo fet ci ñoom. parce que dañ président Macky Sall dañ leen kaay leen ñu waxtaan ñoom jàpp nañu su ñëwee waxtaan waxtaan ba juboo mais xamuñu woon aussi que ni am na ay conséquence yu néfastes yoo xam ne am na si ginnaaw wala am na loo xam ne dafa nduróog ndëgg sëra parce que li comme genre moom la maa nag gis ngeen deya lii dafay wax dafay firndeel nag ci dëgg xam-xam fuuf ëpp leen ëpp mais daf mooy ëpp xam daf leen ëpp xam-xam ëpp leen vision bu pare gën leen a xam xam nga Balla Gaye de danaan wax ponkal ñi naan leen bu dajeeg ponk naan ko dama laa xam te xamuma gis nga Ousmane Sonko dafa xam président Macky Sall te ñeneen ñi xamuñu président Macky Sall. moom xam na kuy président Macky Sall mais malheureusement ñeneen ñi xamuñu ko ñeneen ñi tey ñii def nañ ci politique plus de vingt ans presque trente ans. di ndamoo loolu yaakaar ni kenn xëy na booy bi ni ñoom pour ñoom booy bi mooy cuune quoi. gof la maanaam politique affaire de naxante la. dil la ñoom yaakaaroon na ni moom mooy affaire Ousmane Sonko tey xam na fi askanu Sénégal toll xam na fi peuple bi toll mbir mi nekkatul lii lii la. ñoom dañu yaakaar ni kii mooy dof bi alors que ndeke ni en réalité ñoom ñoo doon dof bi tey gis nga. Euh, <laughs> Ousmane Sonko taxaw nañ ci. ah oui amatul kenn koo xam ne amati nga benn légitimité ci askanu Sénégal léegi nag président Macky Sall tey téye ne la de jore defe la benn morceau foofu kaay boo xam ni mais. lu mu bëgg fomp tey fu taas fu ci moom fu mu bëgg ko fomp tey mën na ko ñu fomp tey taas taasam mooy naka la mën a def tey ba gën a mën a teg loxo ci assemblée national tey tey ñoom ñooy morso fabeerkaay bi nga xam ne tey président Macky Sall nar na ko tey pour fompe leen tey <laughs> taas taas yooyu noonu et malheureusement malheureusement par A ou par B ñu jël benn choix boo xamante ne si par force dina am parce que bu ñu ko signé ñoom tey dootuñu peser lenn ci politiquement dootuñu peser lu bare parce que dañu perte seen ay député bu ñu ko si ñëwul seen seen seen naa bokk yi naa bokk rek seen naa bokk yi ñu doon bëgg fàtte askan bi c'est pas que signe de faiblesse la ou pas mais euh, naa bokk rek parce que kooku bu xamee ne yow mi maanaam comme par exemple ci bu jën wala euh, yaasa nga ne naa lekk rek kooku lu ko neex moom la lay tegal mais daf koy neex mu tegal la yaas daf koy ne alors que nag boo amee sa principe ne man euh, ceeb laa bëgg taxaw ci dëgër ci kon kooku dina def kut ko kut benn la ceeb bi parce que daf xam ni kii dafa xiif xam ko xiif nag moom su boobaa dootoo xamee bu ñu bojj ak bu ñu boxam da ngay dem mu mujj dootoo dootoo am soi euh, communication lu am solo la euh, président Macky Sall gis nga si on nom moo tax su ma gisee ñenn ñi gis nga yàlla xam na ne gis nga gis nga Ousmane gis nga Ousmane Sonko tey jii li ko yàlla defal ak li ko yàlla may. Mhm. nit ñi gis nga ko nanguwul da ngay sonal sa bopp rek. non da ngay sonal sa bopp moo tax président Macky Sall même su fekkente ni nee na maanaam bëgg a quitter pouvoir ba pare bëgg bañ ko renoncer. Mhm. tey loolu laa gis ci ki nga xam euh, mooy président Macky Sall. Thierno Alassane Sall sax la wax. même su may kiitee pouvoir bi itam nee naa ci am dogal goo xamante ni si nii euh, danaay mën di dogal des fois. Mhm. tey. dafa ni woon mbirum troisième mandat nañ ma ko ñaan de mais ci njekk ah, ci njekk rek ci loo xam ne sénégalais ñoom ñoo ko moom dèjà loolu man ba ma déggee gis nga dèjà moronos troisième mandat am ñoo xam ni ñu naan dañu koy dañu koy am ñoo xam ni taxaw naan dañu koy dañu koy tàcc c'est ça man dama yàgg nga bi président Macky Sall nekkul nit koo xamante ni si en fait mm-hmm. parce que à chaque fois li li askan moom la leen di jox ba pare askan wi di bëgg que kon yàgg na jël lu askan bi moom. tey ndeyaa nit ki bu dikkee. Mhm. jox la loo xam ne yaa nga bëgg ci. parce que yàgg na jël moom nga bëgg ci jot te mënoo cee jot. dëgg la c'est ça en fait. te président Macky Sall dafa yàgg jël di askan bi ba keroog bu mu jëlee jëlee delloo askan bi lu ñu moom te delloo bi du ci coobaree boppam. dëgg la daf ko delloo parce que amatu ci woon pexe askan bi ba askan googu bëgg di kontaan c'est parce que kon askan boobu may xaw nañu dee en fait. fii la ñu toll moo tax tey président de la république Macky Sall mais ku ne xam ne Sénégal dañu jëm ci moment yoo xam ni maanaam exploité suñu gaz ak pétrole. ah oui xam nga ñu bare bare dañuy wax sàll lam tooro xam nga yaa président bu am wërsëg xam sens yow la tombeel ainsi mais ku ne xam na ne en réalité tey tombeelu ak président Macky Sall parce que buñ ko exploité dafa fekk moom muy dem waaw mais moom au fait fa la génnee lañ koy waxee peut-être mais loolu président Macky Sall àggal na fi sànc yoo xam ni du moo ko commencé kon affaire bi du du foofu mais moo ko moo ko àggali moo ko inauguré mhm. tey man dañ koy boole ci bilaawam dañ koy félicité mais tey ku ne xam na ni bu fekkonte ni bu pétrole beeg gaz bi nga xam ni tey ñu baree bari bëgguñu bàyyi nguur gi ndax loolu noonu mhm. te ñu war ko exploiter mu nekk enjeu yi gën a mag euh, ku ne xam ne tey président Macky Sall bu ñu jëmee ci loolu noonu da koy fekk muy lem ay bagaasam pour pour pour quitter le pour dem yoonam mhm. est-ce que loolu noonu maanaam président Macky pour dire vrai pouvoir bi ku yaakaar ni bàyyi na ko ku yaakaar ni quitté na ci pour le moment yaa ngi nax sa bopp. ok c'est ça en réalité. Euh, moo tax man ma waxoon dès le début que ni képp ku yaakaar ni président Macky Sall bàyyi na lu toll ni tarfatal ay ni euh, c'est parce que tu n'as rien compris mm. président Macky Sall tey la gën a maanaam discours bi mu mujjee def il faut que nit ñi ñu demaat déglu ko ñu càmbar discours bu baax a baax. ci ngay xamee ni kii nii waajagul sax bàyyi moo tax man à chaque fois. damay damay am na am na droit mais malheureusement du ko def. man de gëw ma ni sax ba tey loolu mu ni renoncé na ko man gëw ma ni sax ba tey jii nii renoncé na réellement parce que ba tey ci ay wax rek la yema ah. ah. waaw mais. ah la parole est sacrée. peut-être la parole est sacrée. respecté naa waxuñu woon fii mandat wu sept ans bi cinq ans la koy def. Mhm. cinq ans xam nga xaw nit ñi il faut ñuy il faut ñuy bàyyi xel. xam nga nee na defi woon mandat bi sept ans la. mais man maa leen wax ne cinq ans laa koy def mu dem ba mu yàgg mu ni déedéet constitution bi cinq ans sept ans la ma fal. waaw léegi nee na constitution may na ko mu mu def mu présenté troisième candidat mais moom mooy bàyyi. te mënuñu ne dama yàgg mu ni non man sama lii samay wax rek la mais constitution may na ma def <laughs> lépp mën a ne comme na mu ko defoon la fois passée. xaaruma ko ci moom. Euh, yoon bi mu jël. Mm. baaxul te ndiruma ndiruma koo xam ne bëgg nga bëgg nga bàyyi bëgg nga bàyyi yoon wi mu jël baaxul te ku koy digal merci beaucoup parce que président Macky Sall soo fàttalikoo discours bi nga xam ne am na ko euh, ca Paris Paris dane dinañ def le tout ba mooy ci euh, nguur gi ba après ba après 2024 c'est pas nag ba xam euh, ñu maintenir ci. pouvoir waaw moom mooy mooy mooy mooy jéem a repousser élection yi plus de deux ans rek wala ans au moins. Mhm. tey loolu loolu ñu bare bari ñu ngi koy njort mooy jéem a repousser élection yi fii ak deux ans. nga xamante ni si nii dina fi toogaat deux ans ñuy exploiter suñu pétrole ak suñu gaz tey loolu lépp xëy na euh, mi ngi doon ay njort yoo xam ni nit ñi ñu ngi koy xalaat ainsi de suite euh, mais bon de toute façon. Mhm. li li li li. anglais bi wax rek wait uh, and see. attendons et voir <laughs> xool ba xam fa la fa la mbir mi di mujjee mais ndiki tey la ñu war a voté ab projet de loi uh, mu wan na nag ne uh, ci ay modifications yi article dinañ ko daal di gis bu baax a baax article 87 bi nag jur na li nga xam moom mooy ab polémique parce que la nga xam ne dënk nañ ko ci fas yéene ko cee def loolu moo. loolu moo loolu la askanu Sénégal taxaw que ni temb euh, ne loolu duñ ko euh, nangu waaye rawatina euh, député yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ak wàllu jamono ji seen maanaam seen ay mbir ci langum politique bi moom moo nekk en jeu parce que ñoom est-ce que dinañ voter li nga xam moom mooy boobu le projet loi ou pas mais l'essentiel mooy que président Macky Sall la soxla ngir projet de loi boobu daal di jàll te à l'Assemblée nationale 82 députés la fa am kon va falloir que ni am ci ñeen ci ay députés yoo xam ne ne dañuy yokk ci moom euh, pour mu mat 99 députés pour que projet de loi boobu jàll léegi ana ñan ak ñan ñuy voté euh, boobu li euh, loi loolu nag euh, moo nekk question bi nga xam ne askanu Sénégal ñu ngi koy daal di posé te boo déggee Cheikh Bamba Dièye muy wax que ne modification article 87 bi li maanaam waxtaanee wuñ ko woon wala nekk na loo xam ne jubawuñ ci woon maanaam nekk na daal loo xam ne ñoom xamuñu woon ni président Macky Sall dina ko teg pour ñu dem voté ji ko kon loolu leeru woon seen te pourtant ñoom demoon nañ ca boobu les dialogue te président am na lu waxtaanee am na lu waxoon que ni. nekkul ne li ñu waxtaanee ci dialogue bi forcément moom la ñuy def kon day firndeel que am na ci yoo xam ne eh, xelu boppam lay daal di euh, doyloo mais daal lu ñu ci mën a xam daal mooy que euh, tey projet de loi bi dina wane wala dina waddal ay tête yu bëri foofu noonu ci l'Assemblée nationale parce que bu ñu ko voté wee ba moomu jàll am suñu bëri ñoo xam ne mën nañ perte euh, seen mandat de député parce que à tout moment président Macky Sall am na possibilité dissoudre li nga xam ne mooy Assemblée nationale kañ te tamit durée bi kenn xamul te tamit article tamit am na benn nouvel article boo. xam maanaam benn nouvelle version article 29 bi aussi ñi ngi wax que ne buñ sukkandikoo ci wall Walfadjri moom moo ñu ko xamle woon euh, que ni article 29 euh, nouvelle version bi euh, day tax que ni benn candidat soo génnee àddina président Macky Sall am na droit ne élection yi dañ koy reporter mais date bi kenn du ko préciser kon loolu tamit dafa nekk benn nouvelle version bi nga xam ne euh, article 29 aussi am na ko beneen nouvelle version bi nga xam ne article 29 aussi am na ko mooy que euh, képp koo xam ne jugé nañ la en contumace comme Ousmane Sonko ni ko jugé en contumace yow doo am euh, droit bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne sa lañ jëm waaye tamit wàllu couplage bi aussi parce que euh, Guy Marius Sagna mi ngi koy ci wàllu couplage bi ak li mel parce que neena nañ lii buñ bàyyee mu jàll mooy que euh, mën nañ coupler ñu ñëw foofu sax balaa ñëw tëj parce que wàllu couplage bi euh, Guy mi wax que ni article bi bu jàllee mën naa ne président Macky Sall mën na boole élection présidentielle yi ak élection législative kon li nekk ci biir article bi comme ni nga ko waxee tantôt dafa nekk loo xam ne bari na loolu ba askanu Sénégal yu ci bëri xamuñu exactement enjeu yi nga xam ne moo nekk ci biir modification article boobu loolu yépp li ko tënk mooy leur seul et unique objectif mooy barrer la route à Ousmane Sonko. on dirait. kese kese kese kese amul leneen tey président xam nga li wax ji mooy gis nga. Mm-hmm. tey loolu xam ni Sénégalais yi fi mu ne nii man yooyu yëpp du sama problème. man xolal yooyu yëpp xolal luñ mën ci def même bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy couplé les des élections na Ousmane Sonko bokk. bien vrai que maanaam xam nañu ni li ñu def nii du yoon mais nag xam nga ku la ëpp doole di la jaay doole itam mais mënoo ci dara en fait ku ne xam ne président Macky Sall li muy def nii du dëgg du yoon la Sidy Lamine Niasse waxoon. pourtant teeloon nañu araftu li muy def nii du dëgg du yoon nañ ko ko wax ca kaw suñ ko ko waxul dañ ko rëcc ji mais pour le moment ku ne xam na ni. Mhm. tey les sénégalais souffrent sénégalais tey kenn ku ne yaa ngi rëccee sa suuful parce que ëllëgu Sénégal fi mu ne nii xamoo fan la nar a mujjee ji très sincèrement. te lépp tey mi ngi aju ci loxol président de la république Macky Sall tey bu bëggoon sénégalais am jàmm léegi léegi léegi sénégalais am jàmm te pourtant mhm. il nous disait le Sénégal dépasse sa personne. ça c'est vrai loolu la mujjee wax. alors. mais tey Sénégal googu noonu tey ndeya ndeya ku ne xam ne ni Sénégal googu mi ngi sëngeemu mi ngi euh, sëgg parce que xamul ëllëgam fan la nar a ji. Mm-hmm. mais man moo tax ma ni tey problème bi yooyu yëpp man du sama problème. Sénégal gis saa wax naa la ko man la yàlla xam li ñuy def nii mën na indi benn jafe ci bu ñu bàyyee candidat yi Ousmane Sonko parce que xam Sénégal yi xam nañu ni lii nii li ko mën a saafara du lenn lu dul ñu ñu eh, organiser élection yu war a bokk ñëpp bokk. Mhm. gis nga ak lu mu mënti def te mu bàyyi candidature Ousmane Sonko Sénégal tey jàmm mën na mën na ni fi ñooy parce que gën naa ne xam naa ne Sénégal duñ génn xeex parce que xam nañu su boobaa fan xeex bi fan la. mais nag luy nar a indi problème dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mu bëgg a def lu mu def ba bëgg cee jaare xañ wala mu yàq li nga xam ne mooy candidature Ousmane Sonko moo tax jugé pour contumace ak. kuñ jugé pour xam nga kuñ jugé pour contumace tey bu ñu demee ñu li ñuy fi L39 dem mu yàgg ñu bëgg ñu naan xaw pour ñu la pour contumace et de suite mais qu'est-ce que c'est que ça mais benn nit bëgg a téye Sénégal bëgg a téye suñu constitution lu ko neex mu def lu ko neex mu dugg ci lu ko neex mu dindi ci mhm. pourtant si Lamine Niass euh, prévenir woon nañu ci constitution muy charte ndeyu réew lu neex nga def ci lu neex nga dindi ci. kenn waru ko woon laaloo fet ku la neex nga jàpp ku la neex nga tëj. Mhm. te kenn du wax comme si que loolu lu normal la en fait. nit ñuy toog te bu ñeneen jugee def lu tul la ter fatal ay ni nga gis kenn ku ne takk sa rajo naan nitu finne la nitu coonal nitu coow la. di di wax lu ne nga wax ci. Mhm. Sénégal nañu bàyyi naafiq yi Sénégal nañu bàyyi ñeme yàlla ji te ragal yàlla gis nga. Mhm. yàlla nguur suñu borom rek gis nga fii kenn amu fi doole. te wallaahi bala nga xam ne kenn amul fi doole. Mm-hmm. ay nguur ay nguuri nguur jaar nañu fi. ba ñu ci jógee gis nga fa ñu mujjee. moo tax tey nguur président Macky Sall nguuram gi nii wallaahi na ci lim ci def na ci sédd yàlla suñu borom am na am nga doole am nga doole rek ñu naan la yow a yow nga ko ngay toog lu la neex nga bëgg a def tey euh, maanaam dem ba nar a ci nga ni léeg nga jeexal pouvoir war a quitté nga bëgg jël pouvoir yëpp ngaar daajoo ko téye ko yow di ko doxal. ci jublu en fait. mais lu jubluwaay bi. ah mais yow nee nga doo bokk te dem nga nee nga doo bokk nit ñi tàccu. ni macha allah ñi ni nag ñi ngi lay ñaan nga bàyyi élec organiser élection yoo xam ne ñëpp dañuy bokk. Mhm. te mu doon élection yi transparente mais ñu gis tànk yi nga di ko doxal gis nga. olof Ndiaye dafa ni cin bu naree neex su baxee dafay xeeñ. président Macky Sall tànk yi mu jël. Mhm. su su ci su ci deltuwul ginnaaw su ci bàyyiwul ginnaaw réew mi mën na dugg ci guddo goo xamante ni si nii ah, ay day du yem ci bopp borom moo tax ma ni ku ci war a wax ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a wax ci kaw nañ ci wax balaa muy trop tard lii nii euh, di di di jël suñu constitution muy loo xamante ni si nii saway moo féete kaw ñëpp mm-hmm. moo tax su ma gisee ñu naan am ñu naan force restera à la loi mais constitution boo xam ne loi yi nekk maanaam ña ña ko tëgg matuñu un pour cent un la population wala sax zéro virgule zéro pour cent de la population <laughs> matuñu ko ñu tëggu ko bari bëgg ko force ci kaw sénégalais yépp ni force restera à loi mhm. bonne loi moo tax man ni nañu bàyyi caaxaan yi nañu bàyyi tappale yi caaxaan yàlla bëggul caaxaan réew kenn du ko yor ci ay tappale ak i caaxaan lii moom mooy dëgg lii nii lii nii nga xam ni mën na jur lu ne ci réew mi bëgg ko teg rek pour ay bëgg-bëgg politique ak ay stratégie ak des calculs politiques mhm. lépp te lépp lépp billaay wallaay problème bi lépp Ousmane Sonko sa candidature kese gis nga bu fekkonte ne ñoom leen na leen nañu Ousmane Sonko bokkee ci élection yi du ko gagné problème bi yëpp du am. ñoom leen seen leen ñi rek leen ni rek mooy seen problème muy muy euh, nan la ñuy def bu am solution ci Ousmane Sonko voilà et malheureusement malheureusement malheureusement pour euh, le peuple a déjà choisi. voilà dañu choisir. Euh, ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko léegi nag. boo bëggee mais mais buñ naan le peuple mooy li ëpp ci peuple bi. tey Sénégal li ci ëpp dañu choisir ba pare xam nga nit en yàlla sax amul sax moo bind ñëpp pourtant yàlla moo bind ñëpp te ñëpp gëmuñu ko. Mhm. mais fexe na mais mais am quand même am na ñoo xam ne gëm nañu yàlla mais tey Ousmane Sonko bu ñu naan le peuple c'est parce que sondage yu mënti génn. Mhm. la ci ëpp dañu ànd ak Ousmane Sonko c'est ça moo tax ñu naan le peuple parce que tey président Macky Sall su toogee nekk président c'est parce que li ëpp ci askan googu noonu nañu ko dañu dañu ko choisir dañu ko jiite moo tax euh, ñu ni le président sax Sall a été choisi par le peuple sénégalais en fait te tey loolu la Ousmane Sonko am moo tax ñu naan euh, le peuple a déjà choisi te euh, ki ñu choisir mooy Ousmane Sonko moo tax kooku noonu boo bëggee teg lenn loo xam ni danga ko bëgg gàllankoor li ma yàgg wax rek na doon lu leer naññ mais di bëgg utiliser assemblée nationale parce que fu ne jaar nañu fa nag fu ne. Mhm. jaar ci Ousmane Sonko ci affaire u mërs maanaam jaww ko la njëkkee moom jàllul mhm. ñu ñëw ci affaire mërs mu essuyer. ñu ñu ñu ñu ñëw. mooy ci justice bi rek. voilà na ñu bëgg ñëw tey ci assemblée nationale pour gën a amaat yeneen bunt yoo xam ne xëy na mën nañ ci jaar dama ni c'est peine perdue parce que le peuple est souverain et il le sera toujours force restera à la loi mais le peuple est au-dessus des lois parce que nag loi yooyu noonu peuple moom moo tax ñu def ko kon yaakaar naa que ni su peuple boobu demee ni ba décider dama gëm ni dañu war a fekk si ci peuple boobu noonu li mu décider bañ toog rek fële naan force restera à la loi. merci beaucoup euh, Kébé nga daal di yëkkati ay kàddu yu am solo ci wàllu projet de loi bi nga xam ni ki tey euh, bu 10 heures jotee 10 heures sa jot na euh, nañ daal di voté li nga xam ne moom mooy boobile loi ñu xool na ba xam est-ce que loi boobu dina jàll am déet mais l'essentiel mooy que. ñu bëri daal ña ngay wax euh, ca euh, polémique bi bëri na un peu partout ku nekk yaa ngi jéem a àddu ci mbir mi la waaye tamit ku nekk yaa ngi jéem a euh, dànkaafu ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall Karim Wade rawatina waa PDS ak ñi nga xam ñoom ñooy waa taxaw Sénégal ngir ñu bañ a voté boobu les lois waaye tamit denn ci député yi nga xam ñoo nekk à l'Assemblée nationale parce que ku nekk rek jàppal ne yow sa mbir politique mi ngi en jeu parce que boo ko voté wee à tout moment mun nga perte li nga xam ne moom mooy euh, sa mandat di député comme ni ñu koy waxee waaye tamit Khalifa Karim Wade aussi euh, suñu euh, fexee ba ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay parti voté li nga xam ne moom mooy li nu mel aussi mën na am benn gàllankoor seen maanaam seen carrière politique bi li ci mënti xam li ci mënti am daal ci kanam tuuti dina ci xam dara buñ jógee foofu dañuy daal dem ci